asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet chaîne football TV nuyu naa leen bu baax si yàq di am mbégte sa su ne defal leen vidéo wax ñi nga do ne chaîne bi welcome bienvenue abonné leen cliquer leen si bobu boobu ngeen di vidéo bu ndóol ngeen moo ko seetaan bu leen fàtte tamit vidéo c'est très important mbokk yi wax leen né euh, maay yeeg euh, muy disponible ba tey sélection maay club ak ballon original au 77 352 31 01 si ay prix abordable gën ko publicité mais sous c'est toujours disponible di remercier bu baax ñi jënd fi ci réew mi ak bitim réew grand merci comme ni nga gisee noonu ci photo yi waa Puma ñoo génne collection bu bees xam donc tey jii la génne defal nañ ko Maroc defal nañ ko Côte a ak yeneen dëkk yi xamante ne ñoo nekk ci Puma bu Sénégal nag bu naa rafet na wala rafetul euh, man mën nañ def lu gën lii quoi du mën a ñaaw na ma yegg foofu mais dama naan parce que maay bu ñaaw bu rafet avec le temps lu ñaawoon sax du dootul ñaawati si yow xam nga mu ngi mel suñu maay yu ñu demee coupe du monde rek dem nañ ba adapté aussi mais boo première fois nga gis Sénégalais duñu ñëw ne yaa ñaaw parce que mën nañu am lu gën lii surtout que boo jëlee maillot africain yi day day day xaañaaral bu fekkee piment la quoi yal na ma yàlla baal parce que xool xool leen bu Ghana ak yooyu boo xoolee tey piment temps Italie yore piment ak yeneen dëkk ay Suisse ak yooyu seen maillot xamu tax duñ duróog ñun c'est plus simple c'est plus nice mais piment nag fépp waa Dortmund kaas nañ fi ndax Pima seeni maillot waa na gis naa la ñu kaas na seeni maillot donc du du du du du yi rek quoi mais parfois bu fekkee sélection européenne en général ñooñu gën a simple maillot quoi maillot bu bu xumbee rek mën na mën na doy waar mais ak lu am rek si c'est disponible sur Senfootball TV incha allah dinañ ko commencé jaay xam nga donc je pense dina xam naa semaine prochaine wala yii di ñëw maintenant que teel a mais su amee rek incha allah boo si bëggee euh, si si si collection xamante ne Pima génne na am ay max nekk lépp.